Eh, asalaamaaleykum maa ngi ziar sama gaay leen màggal di leen ndamoo leen tiitaroo leen bëggee bu wér eh, kontaan ci yéen eh, bon li ma bëgg wax rek waxtaan bi nag normalement warut a gudd warut gudd quoi. Hmm. Euh, li may wax rek mooy di ñaax sénégalais yi di ñaax sénégalais yi di leen xamal ni euh, élection yi élection dund la élection sauver ou périr la la vie ou la mort donc élection yi nañu ko jaral pour se sauver élection yi képp ku yor bëri émotion na nga ko denc élection wu raison la ndax élection sauver ou périr la élection wu rëcc ba faw wala torox ba faw donc élection yo xam la c'est un tournant décisif donc lepp lu jëm ci ay affaire u supporter affaire de lamb ay affaire ki sama mbeur la wër di ki nangam xam nga émotion bi dal ñu wàññi ko Vous di raisonner what's up man on dit quoi tranquille hein <laughs> je parle avec. Yes! yeah. Tu veux voilà. Donc, ay élection la yoo xam ni sénégalais yëpp jàpp nañ ni war nañ cee muna a mucc maanaam rëcc maanaam jaare fi tekkeeku ci buumu notel yi nga xamni depuis 1960 ba léegi dañu ko tak manam rupture rupture boobu ñuy wax nak waxtu bi dafa jot pour ñu am ko waxtu dafa jot ñu tenter euh porte de sortie parce que dañu yag mbëkku yow nak dafa and ak fulla dafa and ak fayda dafa and ak jom dafa and ak euh, euh abnégation dafa and ak détermination dafa and ak combativité donc lolu dama ko bëgg di gis ci yeen sénégalais yi dama bëgg gis ci yeen ay nit yu am fulla ay nit yu am fayda ay nit yu prêt pour tout di dànkaafu encore Macky Sall di artu té wax naa leen ko parce que ñom Amadou Julde Bayal Ba mom ci bopam xamna ni mënul gagné ay nitam xam ni mënul gagné daray dara daray aduna mayul Amadou Julde Bayal Ba mu gagné sénégalais mu gagner ay élection waxuma la sax dixième tour sax mënu ko gagné buñu ñu 100 minutes de prolongation Amadou Bayal Ba mënul gagné ay élection te mom xamnako ko te wax ko ay approcham am ne leen troisième sax xam naa ne ko jël Amadou Bayal Ba amul fumu dem fumu dem ay nit génn amul fumu dem ay nit génn ay nit la la wax génn fu mu dem ay mala lañ leen koy lañ koy tuural ay mala ñooñu ay mala lañ ay fu mu dem ay nit génn nit yi dañuy génn mala nag dañ koy dugal ci ay oto di ko tuur moom la Farba Ngom def ba mu demee ca Fuuta Farba Ngom bañ na ko ba dafa jël ay biis dem ba Mauritanie ci frontière ba dem tibb ay mala indi leen tuur leen ba meeting ba jeexee mu tibbaat mala ya delloo leen donc daral la donc Amadou Bayal ba amul fu mu jàll ay nit nekk fa ay mala la ñuy dem tibb ji ñëw sotti bu ñu paree tibbaat mala dugal dem yóbbu dem delloo leen takkal leen buum ku nekk delloo ca ca ankulo ya Ousmane Sonko nga fi gis fii ñaari candidat moo fi am ñaari candidat ñoo nekk Sénégal jamono ji muy Amadou Bayal Ba ak ki nga xam ni moom mooy Jomaay Fay Ousmane Sonko ñoo fi nekk ñeneen ñu isson sont quasi inexistants quasi inexistants gaay boleh boole wuñ leen sax ci calcul yi parce que xam nañ ni fi ñaar ño fi nek Amadou Bayal Ba mo fi ne ak candidat de la rupture le candidat du changement et le candidat de la rupture Amadou Bayal Ba nak mom mën na ko jën ci daraje sayidina Muhammad. barke Al bu dajé won ak man ma ñuus ko billahi maa ko mun wallahi maa ko mun wataalaahi maa ko mun yor lu dul xaalis yu mu sàcc diko jël ay nit di len jënd ay xar di leen jënd jël ay mbam xoo di leen jënd jël ay nak di leen jënd kessé loolu corruption légui nak loolu Macky Sall ñun la waxal Macky Sall réew mi bu bëggé génn ci jamm ak salam dem ci jamm ak salam te Amadou Diouf Bal traître la moom Macky Sall xam nako donc Macky Sall jaralu ko loolu jaralu ko muy dem fi ñu taal réew mi parce que réew mi dañ koy taal réew mi Sonko wala dañ koy taal par la force loolu mom dañ ko koy wax amul benn candidat boo xam ni ñun sénégalais dinañ toog nga diriger ñu barke alxuraan ma ñàkk sama ndaay sama baay dañuy taal réew mi. billaahi keneen kuñ fi kuñ ñu fi bëgg a bàyyal ku dul Diomaye Ousmane Sonko dinañ taal réew mi dinañ taal sa nday taal sa baay taal seen kër dinañ leen cocktail molotov lu ngeen musul gis ci àdduna. Sénégal la ñuy toj ba mu jeex tàkk tàkk taal ko ba mu jeex tàkk man maa leen ko wax te on est prêt à ça. da ngeen boobaa ngeen xam nag les vrais sénégalais ñan ñoo xam ne dañoo pare pour ne ñii dañuy libéré wu mbaa ñu dee dund mbaa dee la bu boobaa tout le monde est prêt tout le monde est prêt billaahi wallaahi bu laajee jël armes yi dinañ jël armes yi dinañ ñëw même ñun dinañ tax dinañ déplacé wu dinañ ñëw jël armi yi on pour la guerre pour la guerre laa leen wax on est prêt pour la guerre barke alxuraan kooku ni ngi koy wax Macky Sall Amadou de Bayal ba jaralu ko ko moom Macky Sall xam na loolu il a été trahi par Amadou Diouldé Bayal Ba waxoon naa leen li ma leen waxoon Amadou Diouldé Bayal Ba bu mu fi déplacé woo dem palais bu ko gisanteeg Macky Sall ñu naan ay dafa demoon pour wuti xaalis campagne ki nga xam ne mooy Madiambal Diagne di fen naan waa wax naa ak Macky ba dafa war a dégager benn budget ana budget ba <laughs> ñoom dañoo foog ni ñooñu gën a gaay jege gaay ci ay information maa ko dankaafoon man maa ne woon man maa waxoon ni ki nga xam ne mooy Madiambal Diagne day fen Macky Sall daf ne Amadou Julde Bayal Ba li nga sàcc demal nga dem financé ji ko fukk dërëm du ma la ko jox maa ngi nii di dem te dem yow yaa bëgg yaa bëgg réew mi demal nga financé ko loolu la ko wax. gisu leen waa APR génne benn yoon budget jox ko Amadou Julde Bayal Ba pour mu dem campagne moo tax campagne bi comme ay day campagne bi fu mu romb ay weñ ay weñu day ñoo ko topp lu dul ay weñu day day lay xeeñ Amadou Julde Bayal Ba amul barke amul bayre fu mu romb weñu duus yi ñoo koy topp weñu duus kese. ñoy gis yëpp ay wañu douss lañ ci day lañu dundé ci day lañu dundé dundee mu leen di joxi weccet ñi lek mais ben nit topul Amadou Diouldé Bayal Ba parce que Macky Sall il a découvert ay affaires yu lâche yu criminel yu Amadou Diouldé Bayal Ba def def ko ko mom te xamna lolu motax jox ko 1 franc Amadou Diouldé Bayal Ba bu mu arrêté meeting am boobu daw gis Macky Sall bu mu génnee ba légui ma ngay taxawaalu dërëm Macky Sall jox ko et je défie je défie ma dambal Diagne Dengan nga xamni yow ëppoo ñu information je défi ma dambal Diagne na génne fenn fu Macky Sall dégager wala APR dégager ay milliards jox ko Amadou Diol de Baal ba pour mu defee ci campagne fukki dërëm Macky Sall jox ko ko sacc kan nga té lu ñom Amadou de Baal ba di bañ dama bëgg ngeen accentuer wu ci parce que man sama xéer damay xam fuy metti ma fay laal day metti ñaar ay mbir ñaar yu Amadou Diol de Baal ba bëggul ñu wax ko ma lañ ko wax benn bi affaireu sacc la bëggul kuy wax waxu sàcc sàccam boo koy def day yëngu première fois boo ma jul Julde Bayal Ba woowee mooy bi ma defee fii live di wax ci gendarme yooyu nga xam ne ñoo newoon garde rapproché am te ñu jàpp leen xam yor document bi xam seen tur xam seen sant ñu yoroon deux milliards de fonds yoo xam ne ci Amadou Julde Bayal Ba ñoom ñëpp garde corps am rapproché yi lañ jàpp ci faux faux biais entre Thiès ak Dakar ñu ngi ci kaso bi ba suñ jonn yàlla tey ñoom ñëpp ma wax ko guddi gi la ma Amadou Julde Bayal ba wo guddi di wax wax beneen ba bu ma génnee ñaari jabaram yo monte photo bi monté ñaari photo bi jox benn booy mu defal ma montage bi takkale ñaari photo yi bu ma takkalee ñaari photo yi génn ko mooy deuxième fois it bu ma woowaat encore donc mu ñi a wax waxu jabaram affaire u sàcc gi da ko ragal sàcc bu mag la Amadou Dione Bayal Ba le le nee ko génneel defal déclaration de patrimoine mais yeen partagé leen lolu laj leen ko ana sa déclaration de patrimoine Amadou Dione Bayal Ba constitution bi nee bo boo bo donné premier ministre du Sénégal da nga wara def déclaration de patrimoine ñi wul lolu waxu xaliss lepp lo leen songu Amadou Dione Bayal Ba te génnewu leen ay sàccam yi mu terrain yi milliards yi mu doon yi mu yor te baayam amu ko yaayam amu ko donnu ko ci bàyyi ni ci yaay loolu da koo ragal loolu mooy ay point fort la yoo xam ne boo ko ci jàppee këf nga xuuram yi du yëngu dama ne ci mbirum détournement des deniers publics boo koy wax yaa jàppal ne yaa ngi këf xuuru Amadou Diol de bayal bay billahi saa yoo koy wax yaa ngi boxam cocc lay def moo tax Ousmane Sonko ñaar la ci wax rek ñoom ñoom ñu génn seen cellule de communication bi mais mais merci beaucoup Ousmane Sonko amul droit di tontu cellule de communication bo xam ay boy yi ndaw fa ne ay mbalit. Amadou Diol de Baye Alba yabul Ousmane Sonko ba yéey di di tontu Ousmane Sonko du ko def de. mais nak ay mbalit di taxawaalu yor communication ñu jox leen foofu kat yi mbalit di taxawaalu ñi tëddee sen yaay yi Amadou Diol de Baye de communication bu Amadou Diol de Baye Alba est-ce que Sonko war naa tontu ñooñu. Amadou Diol de Baye Alba yi liggéey ak Sonko nek gérer gérer syndicat. Amadou Diène Bayel Ba nekk directeur di sàcc Sonko xam ngeen ni syndicat moo mun directeur <laughs> xam ngeen luy syndicat. ma gis yenn dof yi am ñu Amadou Diène Bayel Ba di tëddee seen yaay naan non nan la euh, euh, kuy liggéeyal euh, directeur di waxal directeur teg ko fi <laughs> Sonko il était le syndicaliste syndicaliste xam ngeen doole bu mu am day mel ni dàmbu syndicaliste. professeur bi nga xam ne euh, censeur ba sax Dame Mbodj ko ëpp doole censeur bi nga xam ne moo jiite Dame Mbodj wala professeur bu jiite Dame Mbodj moo ko ëpp doole parce que Dame moom bu professeur bi defoon dara Dame Mbodj mun na ko menacé na ko tey ma yóbbul nangam nangam donc Sonko moo ëppoon doole foofu si biir impôt et domaine moo fa ëppoon doole foofu directeur bi nga xam ne moom mooy sàcc la parce que moom impôt et domaine dafa dafa yor syndicat syndicat jaasi la jaasi jaas yi boo xam directeur buy dof dof lu sax nga tàggale bopp ak bat bi comme dof yi nga xam ne dañuy foowee sénégalais yi nii bokk ci ñoom Amadou di tëddee seen yaay yi donc di leen xamal ni directeur nomination la politique la et cetera et cetera kese dama ne bokkul sax de syndicaliste sa waay si xam ne luy syndicaliste yow ñun ñun ñi Macky Sall ñun ñun ñii ñun ñi Macky Sall yëkkati na ñu ne ko tegal ci suuf ñun ñi Macky Sall bëggoon na fay def troisième mandat ñoo ko ñuusal teg ko ci suuf mu teg ko ci suuf na da ngeen may ñaan ci njekk ñu la ñaanuñu la ci ndekk noqal teg ko ci suuf troisième mandat teg ko ci suuf mu tegaat ko ci suuf <laughs> kon ñun mun nañ ko kon Sonko la tax ba waru ko mun ci jul Julde Bayal ba <laughs> loolu ko donc yomb na Macky Sall président de la république yëkkati na fi waxu troisième mandat ñu ne ko yees eh, moo laa nekk Canada keneen nekk fekke ñu ne ko teg ko ci suuf teg ko ci suuf mu teg ko ci suuf ba suñ doon yàlla tey ne munoon naa ko mais nangam ne ñu ne ko teg ko ci suuf munoon naa kook dama ko defee nii rek yéen laa xool seen kanam yi ma yërëm leen ak teg ko ci suuf mu teg ko ci suuf donc yéen sénégalais yi di leen wax ni ñun tiituñu Amadou Julde Bayal Ba tiituñu ko de tiituñu ko de barke alxuraan du am fukk du am dara partem boobu noonu gars yi xawla semaine prochaine ngeen gis ay junni junni parti APR yu nar a ñëw transhumé yu nar a ñëw ne dañuy dañuy def seen déclaration pour ñëw ñu ci bari contacté nañ ma ay leader yu APR yoo xam ne amuñu ànduñoo ak Amadou Diouldé Bayal Ba quatre-vingt-dix pour cent ànduñoo ak Amadou Diouldé Bayal Ba yàq na parti Macky Sall ba ndax yëfu dëmm corruption dajale xaalis yu mu sàcc di di jënd ñii di ñàngam amul Amadou Julle Bayal ba bu mu demee bu mu demee ca nu mu tuddati waay mais Samba Ndiobène Ka génnul <laughs> pourtant Samba Ndiobène Ka ba mu demee dëkk Samba Ndiobène Ka Samba Ndiobène Ka ba léegi génnul ci mbedd ma dara saful Amadou Julle Bayal ba yóbbul benn nit kenn topp ko dama ne lee leen ko mu def déclaration de patrimoine sénégalais réclamé leen loolu Amadou Julle Bayal ba baayam jaaykatu banaana la woon yaayam ménagère baye moom mu wax naa leen lu mu Ibrahima Ball baayam tuddoon tojul fenn dama ne réclamer len sen khalis né len ko na def déclaration de patrimoine né len ko réew mi duñ ko jox ab nit bu sàcc milliard te def déclaration de patrimoine wax len ko loolu Ousmane Sonko bu yoru dara sa def na déclaration de patrimoine né len ko mom moom Amadou Diouldé Baldé Ba ne leen ko le peuple réclame sa déclaration de patrimoine c'est une demande sociale du peuple sénégalais mënul nek fii yor ay nombal tànk yu diis yu kawe ba premier ministre te ñemewul def déclaration de patrimoine dama ne benn doomu aadama yow Amadou Julde Bayal Ba ndayam ñàkkul liggéey ba mu lay fal te nga te defoo déclaration de patrimoine loolu mënul ne mënul nek, da def déclaration de patrimoine loolu nag lu mu ragal la dee leen ko réclamer yéen sénégalais c'est votre droit Amadou de Bayalba vous doit une déclaration de patrimoine loolu lañ soxla duñu nit nga sacc señ déclaration de patrimoine Amadou de Bayalba këram du sen kër bay du sen kër yaay barke alxuraan ñu ci bari ci euh, Amadou de billahi wallahi wa taala gis ngeen almadi ku fa yor ay hectare ay auto piscine ascenseur ngandam mun nga fa terrain mi ngi ci biir mun nañ sax football tennis lépp lu te koo xam ne ñaari tali nga nekkoon di xoslu sa baay nekk fa mu ñëw am lu mel noonu te wu ci benn yorewu ci ñaar yoolu ci ñett dama ne Amadou Julde Bayal Ba moo gën a yées ku yées Sénégal ma ñàkk sama nday di nga ñu jox suñu xaalis Amadou Julde Bayal Ba sàcc bi di nga ñu jox suñu xaalis Amadou Julde Bayal Ba sàcc bi di nga jox suñu xaalis Amadou Julde Bayal Ba sàcc bi di nga delloo suñu xaalis suñu xaalis di nga ko delloo tey di ko delloo barke alxuraan di nga ñu ko delloo dinañ la traqué di ñu delloo nday suñu xaalis yow Amadou Julde Bayal ba sàcc bu nga doon bandi salte bi voleur international bi doomu xaram bi nit bu bon bi entre sàcc ak corruption ak Amadou Julde Balde Ba c'est une longue histoire voilà c'est une longue histoire man nag macha allah nee naa leen nee naa leen Sonko yàlla moo ko dimbale bu ko ne bu tay yi Amadou Yul de Bayal ba wut ay équipe am de communication am taxawalu kat kuñ biiral yaay mi ngi fa. am na kuñ biiral ay sëram am na koo xam ne doomu Kuttu Mbassaan mi ngi fa ñoñu dajalo ne entre Sonko ay xoma lan manipulation nangam est-ce que sungko Sonko war nako tontu kon Sonko ñak fayda de Sonko dimension internationale la ma ñak sama ndey legi ma dajak tuba bi ne len Ousmane Sonko ñu ne waw amul africain bu xamul Ousmane Sonko. amul africaine bu xamul Ousmane Sonko Mali Mauritanie Guinée ñuy dëkk fii africain yëpp bu génn benn génnoon fii man la ko Ousmane Sonko mu ne yooyu Sonko kenn xamul Amadou Julde Bayal ba ma ñàkk sama ndey Sonko du moroomu benn doomu sénégalais buy dox c'est il a il a une dimension interplanétaire se le monde entier ñoom ñooy admirer Ousmane Sonko les liveurs du monde entier dañuy def ay live do Ousmane Sonko Ousmane Sonko tout le monde connaît Sonko donc Ousmane Sonko dama ne dafa juddoo senegal kesse mais nawloowul Amadou Diol Déba ba waxuma la nak ay chargé de communication Amadou Diol Déba ay doomu biral doomu kutu mbaasaan yu dajaloo nan dañuy kii non Sonko du tontu yoyu ñoo ñun ñoo lay tontu ñun ñun ñoo leen tontu ñun dama ne entre yéen sen leader Amadou Diol Déba alba et le détournement des deniers publics et la corruption c'est une longue histoire d'amour une longue très très très longue histoire d'amour une très longue histoire d'amour doomi xaraam yi ngeen foog ne mun ngeen fee nekk naan da ngeen di xasante Ousmane Sonko Ousmane Sonko di leen todd dama ne dama ne poussière Ousmane Sonko dàll Ousmane Sonko sax moo gën seen nday gën seen baay yi xaraam yi ngeen ànd ak ab sàcc muy sàcc di leen jox ngeen nekk doomi kurtu mbaasaan yi def fi 12 ngeen ne sénégalais seen nday yi baaxul mun nañ leen falaat da ngeen di ñàpp seen nday fenn damaa woor nag da ngeen di toj seen coortu nday fenn man sénégalais dafa jaral na ma sax sama koor gi dog dama ne boo leen yaakaaree toog fi 12 ans katt nday sañu alal gi ngeen toogaat fi tey ne ñun dañ leen leen falaat fi da ngeen di toj seen cottu nday fen da ngeen di toj sen cottu nday fen laa la wax ci koor laa ko defee nag di di di joxe addi te damaa woor ni 12 ans ngeen mandé nday seen carrière Amadou Diol da bayal ba nekk na fi euh, euh, euh, impo et domaine sàcc ay milliards ñii ne wax mu ñëw mu ñëw finance sàcc ay milliards budget sàcc ay milliards affaire étrangère sàcc ay milliards premier ministre sàcc ay milliards ngeen ñëw toog defu leen defu leen déclaration de patrimoine ngeen ñëw di tàllal loxo naan kaay leen fal da ngeen di ñàpp seen nday bu jël pouvoir bi jox leen ñu taal nday Sénégal génn nday matraque yi dóorante ay coup ratatata ba jeex tàkk ñoo leen gën a fi Sénégal yëpp jog nañ Sénégal yëpp jóg nañ pouvoir bii buñ ko joxoo keneen kuñ ko fii mun a jox ku dul Ousmane Sonko ñu taal nday Sénégal ba ñu yem tàkk bii mooy last bi kenn du dund ñoo gën a sibur kenn amul Macky Sall dul daw keneen du daw dina leen traqué di taal seen kër yi taal sen nday yéen ñëpp ngeen xam ni dee benn la parce que ngeen naan da ngeen ñuy jiite dee ñu ko gënal bu boobaa ñu takk nday bomb bi di explosé barke alxuraan laa la wax toog ci dëkk Amadou Julde Bayal ba di ma di ma dirigé ma dem wut yi bomb takk ko explosé ndayam man réal ak ñu bëri ci moom pare naa loolu tey je je le déclare ici billahi moma lolo ma gënal dund si première suicide am senegal ni tak bomb la wax man ma def ko ñoo wa fofu tak bomb fekk fu Amadou Diouf Dabakh ma explosé ci kawam man dina nangu be sénégalais yi ay doomi kharam yi tok fi 12 ans ñoo naan dañuy jënd sénégalais ci lan lan la fi Amadou Diouf Dabakh ba def lan a part sàcc a part doomi kharamé ak lu ko Macky Sall defal yëpp nu xol nu mu mënee lu mu mujjee yàq ci Macky Sall na parti Macky Sall ba jënd jaam ya tass ko Macky Sall maré ko matul Macky Sall ndaysan dama ko sax yërëm mi ngi déssé bopam xol leen Macky Sall fo leen ko gissati fo leen ko gissati dafa ruus mi ngi mat mi ngi nan non man xamoo ni lañ ma naxé ñom Amadou Diol de Balde ba ñoo nax Macky Sall ñoko fowé ñom Antoine Ñak jom ñoko ko fenn ngaaka la xamul nu mu di ko fen ci booy yi jàppal booy yi booy yi dañ la bëgg a rey booy dañ nangam ak nangam muy jàpp rek loolu lépp da ko regretté tey lépp la regretté delloo na Ousmane Sonko partem ba libéré na ko lépp def na ko ndeysaan dafa jàq Macky Sall xamutul sax fu mu ne xamutul ndax ndax après la comprendre président nag bu falu booy dem ngay doo ko comprendre ne nakate gars yi lu la yëpp seen intérêt kese gëmuñu la ab Abdou Diouf moom la woon nan yëguma woon jeunesse bi nangam Ablaye Wade gars yi ñoo ko élimine Macky Sall ci boppam gaayam yi ñoo ko éliminé ay ñoom Moussa Fall di rayaate Macky Sall tey daf ak a wét ndeysaan moo a wét moo tax Amadou Julde Bayal ba bu mu ñëwee naan ko dama bëggoon nga jàppale ma mu ne ko jàppalewu ma la ndaayam jàppalewu ma kenn ku may yónni amoo kenn koo xam ne àndul woon ak Amadou Julde Bayal ba Macky Sall ne ko demal jàppale ko képp ku àndoon ak Amadou Juldé Baal ba makissal Sall na sa nday ci gouvernement bi képp ku don taxawalu nek don jappal Amadou Juldé Baal ba makissal Sall na sa nday ci gouvernement bi nokku na la ci xat ndax mer gum ko mere ndax yofu dem yu mu ko def soufu ko jënd ay nitam di ñew diko ko signé bëñ motax makissal ne ko xaarama genn Sonko ñep dinañ taxar sa nday ñom Sonko dinañ taxar sa nday ba nga plombé té dinañ jël pouvoir bi premier tour ma jox len ko Macky Sall nu mu meree Amadou Diol de Barab yàlla rek ko ko xam Macky Sall nu mu géddee Sénégal yàlla rek ko ko xam moo tax bu ma toogee dégg ñu naan ay non est-ce que du arrière <laughs> sa waay Macky jamono ji day compter minutes yi day compter minutes yi pour dem yoonam dina organiser ay élection ni xoolal Sonko Jomaay dóor Macky Amadou Diol de Barab ba toog ci kawam mu dem yoonam mu dem Marrakech toog fa tegul dara ci loxoom. doomi xaram la mom Amadou Diouf de Bayal ba traître bu tégal ndayam la doomi xaram la kout mbassane la mom Amadou Diouf de Bayal ba macro la escro la corrompu la corrupteur la du nit bu bax satch bu deug ndayam bi Amadou Diouf de Bayal ba satch bu deug sa nday bi satch nga suñu souf ci yëpp satch suñu ressources naturelles yi nga dem diko joxi France gagné goo naan da ngay joxi France di nga ñap sa nday France dinañ téegal sa ndey parce que suñu pétrole beeg gaz bi doo leen ko jox dara doo ko fi am doome xaram bi kenn bugg la yaa yées yaa bon yaa ñàpp sa ndey man maa ngi bu ma juddoo ba léegi maa ngi doo ko saaga ci weeru koor te woor mais nag billaahi yàlla nangul na ma sama koor gi yàlla nangul na ma sama koor gi barke alxuraan ma jàpp Amadou Jul da baal ba di boxam nday xuuri yàlla di ma nangul sama koor gi parce que sénégalais yi yàlla nee na xeexal leen seen nation nee nañ bu ñu bu ñu bëggee toroxal seen nation bu ñu bëggee néewal doole seen nation bu ñu bëggee yàq seen nation nee na xeex leen te yàlla xam na ni man damay xeex yàlla xam na ni damay xeex jihaad la dama ne bu leen fàtte ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor la jihaad kon man ci jihaad laa ne Amadou Diop la baal la ba dinañ tax sa cott nday laa la wax dinañ daxaar sa nday di nga ñu jox nday sañu xaalis di nga ñu jox sañu xaalis di nga teg sañu xaalis di nga génne xaalis dañuy jihaad te ci weeru koor la ñu ne dama ne jóg leen jihaad jóg leen jihaad Sonko ngi jihaat mi ngi ci oto yi mi ngi wër mi ngi campagne jóg leen jihaat jóg leen jóg leen jihaat jóg leen jihaat sauver seen nation jóg leen jihaat sauver seen askan jóge ji jóg leen jihaat sauver sauver ay bakkan Amadou Diol da baal da baal maa da fokk hmm? ça va vous connaissez Ousmane Sonko non oui oui Ousmane Sonko oui oui Amadou ba personne ne connaît Ousmane Sonko ñoom ñëpp xam nañ ko lu ma leen waxoon africain boo kii xam ne Ousmane Sonko Amadou Diallo Ba la tojul ndey tojtu ndeyam fenn tojul ndeyam Amadou Diallo Ba yaakaar sa ndey sàcc bu dëgg sa ndey bi yaa ñëpp sa ndey yàlla na nga dee ci lakum xorom yàlla na nga accidenté ba toj sa cottu ndey xar juróom-ñaari weer paar yaa ñëpp sa ndey sàcc suñu alal kenn xamu la tous les africains connaissent Ousmane Sonko ici tout le monde Ousmane Sonko icône internationale la Ousmane Sonko denrée rare la Ousmane Sonko c'est le drapeau de l'Afrique amul africain bu dox bu xamul Ousmane Sonko mané ko Amadou jël rabal mané wo ne woo ñoom ñëpp tiit kenn xamul nday doomi xaram bi Yo ñun dinañ jël ko xamni Afrique yëpp dañuy genn gis seen bop ci mom Ousmane Sonko ñu nak fi ñuk di la teg yow dooma ñàpp sandaay bi kenn xamul la kat bi international bi doomi xaram senegal taxaw len fi Macky Sall du fi jox benn pouvoir Amadou jël de da ko méré da ko mere ay nitam ba léegi kenn bàyyiwu ci Macky Sall ba Macky Sall bañ na ko ba gouvernement am ñu mu fa teg yëpp amul kenn ku ànd ak Amadou Juldé demee dëkk Samba Ndiobène Ka Samba Ndiobène Ka <laughs> Amadou Juldé Bayal Ba dafa ñëw ne ay waay sa waay anamu sa waay koo gis Macky Sall moo leen ko wax ne leen ma gis ngay taxawaale ci Amadou Juldé Bayal Ba ma daxaar sa ndey man maa waxoon damay nekk directeur de campagne am naka de doome xaram la du ma doon directeur de campagne am waxulu ko dara Macky Sall musul def discours ne jappale len Amadou Diouldé Ba Aldaba ay sen journaliste ci lañ yor mus ngeen deg Macky Sall ñew def discours ni ne jappale len Amadou Diouldé Ba ay ñom ma dambal jañ lañ ñom Macky Sall réitère son engagement ne len wax fan la ko <laughs> ñun xam nañ lepp de pale gogou bu Macky Sall safé day di dugg du sax ñu xam lan la li lepp waxon nañ ko fi bu len di wax waxu amnesty bi fatali len kañ la bu ma di wax waxu ay ñu delloo parti bi Macky Sall Ousmane Sonko parti am fàttaliku leen kañ la boobu àll bi naatu naatul woon de tàngoon na jër mayow naan leen amnistie delloo parti bi eh, libéré Ousmane Sonko libéré les détenus politiques yooyu yëpp bu ko fiy wax boobu xaajaguñ xalaat lu melni ni tey am moo tax chaque jour damay xool histoire yer di dama ne Macky Sall ñi mawul def discours ne jàppale leen Amadou Jules de de Ba defu fenn musu leen koo gis musu koo def ndax mere gum ko mere ndax trahison bi ko Amadou jul de Bal de trahir ndax ni ko bettee mu am lu ko metti lool Macky Sall jamono ji moom rek moo des toog fu mu toog bu ko bu ko jaraloon dara bu Amadou jul de Bal de trahir loon Ousmane Sonko Macky Sall kon Macky day génn man Macky Sall man maa leen woo ci jàppale Amadou Diouf de Bal musu ko def du ko def de du ko def mukk mukk mukk joxu ko xaalisam génnewuñ ko defu ko du ko mës a def ndax trahison bu mu ko def trahison bu ñaaw la ko def ak ay traite Amadou Jules de Balde ba mooy doomi xaram mooy kutu mbaasaan mooy traître paa boobu vrai dëmm la te moo mag Macky Sall nag te moo ko mag de paa la de moo ko mag de grand wu Macky Sall la vrai doomi xaram la lu ñaaw la def Macky Sall moo tax Macky Sall teg ko fële Amadou Julde Balde Ba mo ne won amna na 4 millions de parrains <laughs> yalla nañu yalla musal ci président bu mun a duul Amadou Julde Balde yow yaa wax ci ay manipulation sa sa sa sa cellule de communication nan Ousmane Sonko ay manipulation maçon c'est une longue histoire Ousmane Sonko rek musul fene lool yaa ne am nga 4 millions de parrains anañu doome kharam bu mu déssé lu dul parrainage nga dem jëli élu locaux yi nga dem jëli nga dem jëli maire maire yi ya ñap sa ndey mun 4 millions de parrains ñi ma woo leen ñi 4 millions de parrains nga dem jàkkaarloog sañuy fichier électoral bi di copier <laughs> Amadou jël dabal dabal moo yebaate sañu fichier électoral bi la ubbi jàpp seen tur yi di bind rek Ablaye Fall patriote certifié Amar Sar, deef deef Sala Kassé muy bind seen tur yi génn ne am 4 millions <laughs> génneel ba léegi génnewu ko de fan la mujjee fen rek lay def ak mu na fen pa bobu dafa fen bu nu mu bidjaw ñuulal ko ñuulal kat bi yalla daf la haramal yow yalla dafa haramal yow yow yalla la la haramal yalla dox la 64 ans ngay ñuulal karam, xaram me xaram tu peux même pas assumer ton âge le nga dé war dem jël kurus gi dafa ko me xaram bi ngay ñuulal ñuulal kat bu deug sanday bi yalla rëbb na la rëbb te yàlla lu mu rëbb saagaal ndeyam parce que yàlla dala ciy may tiyaaba Amadou Diol de Balla ba yàlla da ko rëbb yàlla rëbb na paa bu am 64 ans di ñu wulal yaa ñàpp sa ndey yow Amadou de Balla ba yaa kat sa ndey di ñu wulal di weexal di weev di lamsal doome xaj ana sa 4 millions de parrain parrain yi <laughs> fenkat bu dëgg sa ndey bi ana sa 4 million de parrain yi ana mu danañ daxaar sa ndey wax nga jox ñu suñu xaalis réclamer leen seen dû réclamer leen seen xaalis Amadou Diouf da bal da ba Amadou Diouf da bal da bayal ba nee leen ko nee leen ko mu génne suñu xaalis sàcc la na génne suñu xaalis na génné suñu xaaliss Amadou Diouf Dabal Daba na def déclaration de patrimoine Amadou Diouf Dabal Daba defal déclaration de patrimoine Amadou Diouf Dabal Daba defal déclaration de patrimoine satch bu deug sanday bi satch bu nga don defal déclaration de patrimoine te Macky Sall néna li nga satch génn ci nga campagne ci te ang ci campagne do ma xaram ñi bëggoon blanchir xaalis bu sale bi l'argent sale yoni ma dambal jaañ mu kat bi mu na noy gis na Macky Sall néna dina dégager ben fortune bu colossal pour campagne am anam le campagne yi jeex une semaine ci def anou da ngeen di deug sa nday duul li ngeen di duul dama ne Macky Sall bu doxate pale ma ne la doxat na bu doxate pale ma ne la doxat na man ma la ko wax luy dox pale ma wax lako Macky Sall bu doxate pale ma ne la doxat na kon yow mënoo ñoo nax yow yow ma dambal jaan doome xaram bi nga na <laughs> no gis na Macky Sall pour mu gis Macky Sall problème la taxaw na nday fofu ci pale ba sonu di wo Macky Sall jëlu ko mom bayina lolou ñew di wax ak Macky di bëgg Macky Sall lo na fa ndayam ba mu tass Macky Sall do ko recevoir barke rasoulay tok na fa bat tun gi tang Macky Sall do ko recevoir mu ñew dama damaa nga wax sa gaay parce que fu ma dem kenn duma gis ñaari nit man de damaa commencé ñaari nit gisumako do ma dimbale lillahi wa rasuli wax sa gaay ñu jappalam hmm nga xol lo ma jox Macky Sall la ko jox am nga ma laaj yow nan nga bëgg doon président deug nday alalu réew mi naan jox luma lay jox man mi di dem man mii di dem joxotoo ma paas joxotoo ma yóbbal ma lay jox ñeppal sa ndey ci li nga sàcc dem dem campagne yi <laughs> waaw waaw noonu la demee noonu la demee ba léegi ci campagne du jul de baal de baal noonu la demee dërëm joxuñu ko ko doome xaraam bi kutu mbaasaan bi traître bi sàcc bi déclaration de patrimoine nañ ko laajte dañ ko ragal nañ xam ne ñun ñun bandi lañ def naa quatre cinq publication ay nitam même bu ñu attaqué yeneen yi la ñuy attaqué ay Amadou Julde Balde ba jëm na ma koromp <laughs> ñu ne Amadou Julde Balde ba dalaa soxla dem leen laaj ko Mollah Morgun Amadou du la ko wax. nee naa la demal wax ko Mollah Morgun na génn commu cellule de communication boobu ba léegi maa ngi daxar seen ndey nañ génn ne Amadou Julde Balde ba woowu ma <laughs> nañ génn Amadou Julde ba maa ko gën ndey gën ko ci bàyyi gën ko man ma mooy jéem a woo ma coupé parce que tekkuwul sarab ndayam lu du sàcc man noobul bi xool ma noobul noobul guerrier lex yi du ay laxu sàcc bët yi du ay bëtu sàcc loxo yi set wecc man maa ñeewul Amadou Diouf dabal dabal na katt ndaayam fële sàcc bu dëgg ndaayam la man bugguma xam sàcc ma xam sàcc man maa ko nawloowul Amadou Diouf dabal bu ma nawloowul man may nitu yàlla set wecc set wecc maa ngi ni xoolal doy loolu ma yor maa ngi nii di dox nu ma neex xoolal amul garde corps amul daal kenn ma dóor maa ngi nii di naaw bu ñëwoon fi ñu ñàpp sàcc sacc la fu mu génn ñu yuxu kat la ndayam bopp bi kañar deew kañe kat la ndayam sacc la wóob bu saccay saccay bum bum bum ndayam man ma ngi rek ma ngi ni sama jamm sa ak sama salam yalla kawel ma ma xaram man ma buma man ma bugul sax déggante Amadou jelda balla ba do ma xat dina ñew ci lolu mu ma doon wax nonu ci garde corps ami 2 milliards GIGN garde corps gendarme GIGN yu ko doon garder deux milliards ñi ngi ci kaso bi deux milliards leen jàpp deux milliards de faux billets rek ma dëgg sanda yow du moom nga ma njëkk a woowee na moo ngi dégg gars naan ma yow yaa ngi doon wax ci faux bi quoi ma ne ko ah, ah da nga dégg wala dañ la ko wax non non dama ñu ma koy wax quoi waaw mais mais loolu moom ma ne la père toogal rek yow doomu xaraam nga toogal déglu ma toogal déglu ma te dinaa ci ñëwaat te boobu dinaa ci yow dossier boobu dama ko téye booy même ñu leen di seeti doomu xaraam nga tay nga len tay la nga len 2 milliards de faux billets say garde rapproché nga tay la len ni pour ay xaalisu campagne bu nga don wadjal nga tay la ay boy gendarme ay ay soutien de femme ya ñap sanday Amadou djul dabal daba ya deug sanday yaay doomi kharam yow yaay traître sarap ndayam doo ko fi am sénégalais dinañ sécuriser vote bi Macky Sall du dem tal réew mi te jaralo ko ko dinañ la deug sanday premier tour ba tok sa kaw la la wax dinañ deug sanday ba tok sa kaw premier tour doome kharam bi sàcc bu deug sanday bi sàcc nga xaalisu trésor bi yëpp def ko ci ay paquet paquet paquet di ko dugal chaque année di nga génne presque 4 milliards yu ngay sàcc ci trésor public goudi ngay ñew dossier yoy ma ngi wax man fuma lay réé damay bàyyi opération ben opération rëbb deum lay def Amadou djul de bal de Bala samedi prochain ma tok cottu ndayam samedi prochain samedi prochain lu mu dégg man la ko yoni nak ma ñap ndayam mun nga yooyu ko yónni ay gars yi ñëw di yërëm tolli di macc moom moo la jàpp ci xaw ma Amadou Julli ku ñëw maa ngi leen koy artu nag ku ñëw naan ma Amadou nee na dinaa dëgg sanday aw ma ci xarit aw ma ci àndandoo man Sénégal xaritoowuma ko Sénégal àndandoowuma ko intérêt senegal aw ma ci papa aw ma ci yaay wax naa leen ko dama ne bu senegal taxawee aw ma papa bu Sénégal taxawe aw ma yaay bu ku amul papa amul yaay bu senegal taxawee du am àndandoo du am xarit ku Amadou Diouldé Ba woo dinaa Dakar sa ndey nga ñëw ci man wax naa leen ko nag yéen on se connaît dans le xamante nañ bu baax doo leen même doomu xaraam yi di waxantu nii doo leen génne leen moytu leen waa ji kii Amadou Diouldé Ba da xam na ko bu baax tey Dakar ndayam maa leen koy wax nag samedi dinaa ko opération bu dëmm lépp lu mu mës a sàcc dinaa leen ko génneel sàcc bu dëgg ndayam la ak ñu muy wutang wang ak kooyam bu lax boobu doomu xaraam la génne jabaram yeeg yëpp ma démb waa kii naa ma eh, ma laa jàpp ci ba nga commencé wax ci eh, Aïssata Billo Billo boo léegi dafa feebar na ñëpp ndeyam dee non Aïssata Billo ba dafa feebar xaw ma na laa la wax xaw xaram dinañ leen régler Sénégal ñoo ko moom Sénégal dañ koy jël dañ ciy teg sañu loxo fii lu dul patriotisme du ñu jiite ñu ñoo moom sañu bopp Macky Sall du dem am kum ñuy bàyyee dañuy sécuriser lépp mbalde paaka jaasi ba pare nag guddi googu noonu la ñuy commencé génn jubile taal nday feu d'artifice di wër waa Sonko Sonko xaaruñu sa nday kenn ku ñu naan ñu ay résultat dama ne bu ñu tëjee bureau de vote yi rek ñu teg car cargaison oto yi kala naxa katt ndayam lu musul am ñëpp génn ñu teg péep Sonko Diomaye po sa Ponko kenn ñi mu taxaw na gañëw ñaari fan lañ ko def ñetti fan ba xam kenn dina génn naan ay eh non li ngeen di kii danañuy génn nday ci mbedd bi xaaruñ sax résultat dañuy pare bureau de vote yi ñëpp dañuy bàyyi foofu jomaay génn nday Amadou Diol dabal daba buñ ci paree dama ne neuf heures ci guddi vingt une heures oto yi na corne pep pep Sonko Sonko pep ñu ànd ak résultat yi kese li ngeen xam ni <laughs> sàcc nënd yomb na mais foo koy tëggee jafe ngeen foog ni dañ leen bàyyi noonu ngeen di sàcc ay décompte xaaruñu cott ndayam day pare rek ñu génn nday ci mbedd mi envahir katt nday oto yi pim pim pim pim jébile di xaar ba kenn génn fi wax fi leneen ñu toj sa cott nday taal nday sa kër taal sa baay taal sa yaay taal sa maam taal sa nijaay créé nday foofu guerre yéen doo leen gën a féroce bu leen alal sa jaralee ngeen ngeen dëkk bi tàkk ay ca bisimilaay ñun bañuñu ci dara noonu ñun pare nañ amuñu lu ñu ragal ay dañ koy sàcc ak yooyu nee leen góor jigéen ñi na ay ñoom dañ koy sàcc nañ taxawee na le kenn du fi sàcc sarap ndayam ñun ñooy taxaw jubilé élection yi buy pare vingt et une heures dañuy jubilé barke alxuraan suñu résultat kenn du ko faqat wuyu ba ndey baayam wuyu ba ndey baayam Macky Sall moo xam lan moo tax mu libéré gars yëpp toog <laughs> bu fi Amadou Diouf dafa defee lu mu war a def soldat yëpp a ngi ci out soldat a ngi outside cocktail yaa ngi fi ba léegi de molotov yaa ngi fi ba léegi soldat yëpp a ngi outside deux cent moo fa des sur deux mille yi ngeen jàppoon deux cent fa des ñëpp a ngi ci mbedd cop cocktail yaa ngi tàkk ñu ngi dajalawaat xaalis ba cocktail yi rek kat seen nday rek cocktail briquet almet bub bub bub kat seen nday ba ngeen polombe taal nday kër Amadou Diouf taal seen nday yéen ñëpp ñëpp taal seen nday Amadou Diouf de bal de bal dooma xaram concentré wu les kenn mënul sàcc suñu élection hold up du fi am dee ñu ko gënal takk ay bomb dóorante moo ñu ko gënal explosé moo ñu ko gënal yéen moomu leen ñu mënu leen soldat yëpp nga outside pare leen de ku fi wax leneen rek ñu cocktail sanday briquet almet pneu essence taal ñoo leen gën a si buru ñoo leen gën a si buru damay jihaad damaa woor damay jihaad Muhammad sallallahu alayhi wasallam weeru koor la jihaadoon xeex ba xare ba daar weeru koor la maa ngi xare ba nii xare badar ay jaasi la <laughs> moo gën a tàng moo gën a tàng saaga xare badar weeru koor gaay di tag tàggale bopp ak <laughs> bopp ak baat yi ci ay jaasi kon kay man bu ma defee lii moo gën a ndaw <laughs> dafa mel ni xare badar gaay yi yore jaasi man ma yor paaga man saaga rek laay def buñ fekkoon fii ñoom ñoom ma gis la ni naa ndey seen bopp yeeg seen baat yi xare badar digg xare badar weeru koor ngeen war a jaamu ji yàlla jaamu war a jaamu yàlla ci xare badar bi profito xeexal seen askan Muhammad sallallahu alayhi wasallam askanam la doon xeexal xare badar weeru koor la weeru koor laa nekk nii di xeexal sama askan xare badar dama ne Amadou Diouf dabal la ba dangeen daxar sa ndey billahi képp ku fi laal loona warta laal ñoo leen gën a kàtt la fal ndey ñu amuñu lu ñuy ñàkk yéen a tabax ay kër di ay milliards yéen yor ay compte en banque ba daaj bu ñu dajjee banque seen xaalis moo fa nekk ñun suñu xaalis nekk fa ñoo ñun amuñu lu ñuy ñàkk yoruñ caq borom caq du xex ak borom baat ñu ay borom baat neen lañ dagg sa nday ba yak caq yi ñoo ngeena fi si buru leer nag restez au rendez-vous de l'histoire amul daw amul du gannaaw soldat yepp ngi fi ku ci genn gëna déterminé wu taxaw leen ñu fas yéene continuer le combat inshallah Amadou Diol da Bal da Ba mom lëfal ndayam du ko te saram ndayam du ko am Sonko ngi toj Sénégal Sonko ngi toj Sénégal Sonko ngi toj Africa Sonko mi ngi toj Sénégal di toj Africa di toj sow jant xool leen ko ak ay centaine de milliers de personnes xool loxo booy sama ne seen loxo di set sàcc baaxul Amadou Julde Balde ba munul dem fenn dem fenn ndax sàcc so nee leen Amadou Julde Balde ba mu def nii Sonko def <laughs> kon ñu dëgg ndayam de Sonko nii lay génne bopp bi taxaw neen ni xoolal gars yi di naaw na ko def Sonko nii lay génnee nii naan nii gars yi gars yi naan Sonko jomaay mu naan nii <laughs> looloo neex loolu mooy fierté mais Amadou Jules de Balde ba bu ko defee gars yi te nday bopp bi de comme comme deew kaña lañ koy def na def ni Sonko nee leen du jul de Balde ba bu dee góor la bu dee yaay góor la jur nee leen ko mu génn décapotable ci ci kii jaar Pikine nee leen ko mu génn décapotable jaar caaro yi <laughs> nee leen ko mu génn ak décapotable jaar Médina nee leen ko mu génn ak décapotable xool jaar Grand Dakar kon ñu daxaar ndayam de <laughs> kon foofu dina mel kon di mu waaf waaf leen lu defoon waaf leen <laughs> mi nag kon nag les gars le continue ci jihaad la ñu ne dara du ko fi am dara man ak Amadou Diouf de Baldaba marquage à la kilo dara opération rëbb dëmm nag wax naa leen ko ce samedi parce que dimanche moom mooy élection yi ce samedi opération rëbb dëmm spécial Amadou Jules de Balde Balde Ba ba mu juddoo ca ndayam ak baayam ba bu mu day fu mu day nii ay nombre de doomam seen tur yi seen sant jabaram yi sàcc yi mu sàcc trésor impôt dama lépp dinañ ko génne incha allah donc waajal leen ko loolu moom mooy élimination bi moom mooy deewu kaña bi Amadou Jules de Balde Ba nee leen ko nañ na génne bopp bi na dox ci dëkk bi def cortège génn bopp bi <laughs> yéen réew leen sax ne toog leen si seen kooki nax seen ba ayam ah, na julla baal de ba saram ndeyam du ko dara du ko nee mu def déclaration de patrimoine doome xaraam bi dëmm bu dëgg ndeyam bi xanaa day katt sa yaay <laughs> ah jéeli jéelaa ni géey xanaa amadou jul de baal de ba day katt sa c'est sûr sàcc boo xam ne bu sàccee ñëw katt sa yaay da moo tax nga nekk sa nday yow doomu dëgg sa nday bi maa ngi ñëw tot sa cottu nday nag mm, kenn du la gisaat maa ngi ñëw rek ubbi sa data nday dugg ci toog <laughs> léegi rek kon nag ñi nuyu gars yi ma dem ci doomu xaram bii kii kii di eh, eh, jiili jaylaani bii Amadou Julde di katt ñëw tot cottu ndayam doomu biiral bi maa ngi ñëw ci léegi kat sa kat sa nday yow Amadou Julde bal def baay dagg kooy baayam rokkos ko sa sa nday big la le combat continue incha allah comme nu ma ci taxawee nii farlu ci nga xam ni bu Amadou Diouf Dabal ba taxawoon fii ma lekk ndayam billaahi bu Amadou Diouf Dabal ba taxawoon fii ma lekk ndayam du ma ko bàyyi sax muy dem élection may warax ndayam wan kobraa ko billaahi lëmas katt ndayam warax ko pour wan leen gis nga lu fu ma toll gis nga ñaq di wax dëkk baa ngi sedd guy cinq degré ma ñaq tooy xapp da yooxu gis nga tàng gi ma tàng ndax am envie lekk ndayam warax ndayam ndax dëmm bu dëgg ndayam bu mu doon comme nu muy lekkee suñu alal ma warax ndayam lekkaale ko na envie ba mu am na na leen ko raw yéen yéen ñi nga xam ne yéen a koy dund yéen ñi nekk ci ci xare badar bi yéen ñi nekk ci terrain bi ci kàkk gi di ko dund am problème mu Malboro am problème mu cigarette lépp Amadou Diouldé Baldé ba kàtt ndayam lekk ko ngeen am problème mu faju am problème mu sécurité am problème mu dox mu continuer le combat man di waxaat Amadou ba ne ko doomi xaraam yi muy tëddee seen yaay man bokkuma ci man mënuma koromp data ndayam man mënuma korom man xol xol mo Amadou man ama soldier ama soldier Senegal la défendre l'Africa man kenn mënuma jënd ñi ngay kat sen yaay di leen jënd ñu dëgg sen nday taxaw di taxawalu ci internet yi di mar ay bun man bokuma ci men man sama nday la me la me ot ot barka rasulaay bu mu juddo ba léegi mi ngi ci sama kër di for ñi ñiy lekk di dund xoolal sama baay musul taxaw musul taxawaalu ci parti politique di saraxo doom moo tax ñu jur tey doom moo tax ñu jur jàmbaar baay joo xam ne foo ko fekk dafa liggéey ba ba màgget toog fu mu toog tey ñoo ñoo jur gor gor mooy jur gor doome xaraam mooy jur doome xaraam yal nañu yàlla musal ci doome xaraam am jabaru doome xaram wala papay doome xaram moo tax muy jur ay doome xaram yoo xam ne dañuy défendre doome xaram vive Ousmane Sonko vive Diomaye Faye vive le peuple sénégalais vive la souveraineté nationale vive la liberté vive la liberté vive la liberté da leen choisir ay papa yu baax da leen choisir ay papa yu baax da leen choisir ay jëkkër yu baax da choisir ay jëkkër yu baax jëkkër yu baax ak alal wute nañ jëkkër ju baax jur doom ju baax doom ju baax di xeexal askanam ku fi choisirul jëkkër ju baax jëkkër doome xaram mu jural la doome xaram doome xaram boobu topp ay politiciens di mar seen buni ñuy day muy mar ñuy day ñuy mar ñuy day ndeyam muy mar ñuy ñuy joxe seen yaay ñu leen koy kattal dee leen jur doom yu baax kon wut leen jëkkër yu baax wut leen jëkkër ay góor ay garmi ay combattant yoo xam duñ lekk alalu ger kenn ñi taxaw ne man ger naa kii pour mu defal ma dañuy xeex ànd ak conviction voilà inshallah allah bu dee euh, rëbëdëm bi mën nañ ko def vendredi wala samedi ça dépend on va voir on va voir de toute façon voilà peace and love and I'm out ramadan mu baragan ah. ñi dem ndogu ji bay tay mom or bu neex la wor barke alcorane or gi tay mom gëm na ni sama or yalla nangunako tay gëm naa ni sama koor yàlla nangu na taxaw naa ngir sama askan xeex naa ba ñàkk yuuxu naa ci seddaay xoolal lu dafa sedd nii maa ngi yuuxu di xeex di xeex ñàkk xeb di fomp di dóor tey moom yàlla nangul na ma sama koor billahi wallahi tey yàlla ne la jërëjëf moo laa sa askan lii la la jaral moo laa lekkoon naa noonu nalawoo dara dafa toog ndax sa askan woor ñëpp toog di daw koor gi nga xiif mar di ma jaamu ba pare di ma xeex di xeexal sa nation jërëjëf maa ngi sant yàlla alhamdulilah moo koor gi barkel na tey macha allah yaa jëf sama gars yi pisan loof ena maawut